yàlla ñu ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di kontaan bu baax ci ñu ñu feete julli gi tey jii donte sax am na ñaari korité waaye loolu nag euh, sahabatul kiram sax bañ fiy nekk gën ñoo dégg diine sax yu mel ni daana am loolu du problème euh, loolu taxul ñuy wax ñàkk jàmm ci réew waaye ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nangul ñëpp seen julli nangul ñëpp seen euh, buurum koor te nangul ñëpp seen koor nangul ñëpp seen laylatul xadar ak mboolem ñaan yeeg jéggul yi ñu ci def yëpp suñ borom nangul ñu waaw di wax imaam yi tamit bu ñu wootee ci jàmm loolu mooy actualité parce que réew mi boo gisee bu ñu demee ba euh, lu mel ne 4 avril lu mel ne tabaski ak korité ñu jox président pouvoir mu jéggal ay prisonniers yoo xamante ne yoon leen a àtte ba noppi loolu dafay wane ne feet gi du ci suñ yére yi rek la war a yem du ci li ñuy lekk la war a yem du ci li ñuy naan mais environnement bi sax dafa war a ànd ak fête loolu moo tax ñuy jox euh, président pouvoir ne ko su bisu tabaski bi ñëwee da ngay jéggale su ko defee ñi ci kaso yi sax noyyiwaat seen i mbokk noyyi environnement bi nekk environnement boobu day fête mais ku xool démb li am wakaam ak yoof ak lii xew ci réew mi ak euh, yii di guddi yii ñu jëm euh, képp kuy wax war ngaa wax ci jàmm te loolu mooy mooy euh, wax war ngaa wax ci jàmm ngaa wax ci luy luy luy boolewaat nit ñi surtout que ñuy politique parce yi bari na prisonniers yi bari na xët-xët yi bari na ci tey daf cee ndax li président di rëy rëy day ñëw taxaw ci ginnaaw imaam lu opposant rëy rëy day ñëw taxaw ci ginnaaw imam tey kon imam yi tey ñoo amee pour euh, maanaam joxaat réew mi couleur bi mu soxla te yaakaar naa ne ñoom ni leen ko alxuraan waxee rek lañ koy defee mooy ñu soññee ci jàmm waxaat président bi mu euh, xamaat boppam xamaat li mu yore xamaat ne peuple la ko seqal peuple xamaat ne président bi kilifa la euh, yàlla jox na ko ay ay cër bu ko defee kenn ku nekk joyantewaat sa bopp réew mi am jàmm ñu doxal tey ñu àgg ci élection yi ak jàmm te jàll ko ci jàmm te ba déwén ak jàmm ñu ko waraat ci jàmm wari ci jàmm Sénégal sax ci jàmm. Ah, bu ñu dégloo njiitu réew mi euh, jamono gi nga xam ne moo ngi def maanaam déclaration la mu wax nee nag fas yéene naa toog ak ñëpp ngir jàmm jooju am waaye nag si diggante soor aussi euh, maanaam ki nga xam ne moo di euh, moo di le leader du Pastef Sonko yëkkati na fay kàddu la mu wax moo di jàmm ñaar koy mën a def kenn mënu ko def loolu est-ce ne. Euh, Sénégal bu ñu toogee rek waxtaan mën nañ trouver maanaam waaw fas yéene na maa toog ak ñëpp loolu bu ko président waxee wax na lu war a wax mais loolu warut a nekk euh, comportement bu muy am ci benn jamono moom tout les temps dafa war a mën a toog ak ñëpp parce que mooy président de la république tous les sénégalais te defe naa ne moom reconnaître na ne 58 pour cent moo ko fal 58 pour cent nag bu la falee kon reste na 42 pour cent yoo xam ne d'accorduñ woon ci nga toog fi. te ñooñu pourtant ku ci police jox ordre wala boo bindee décret day concerné 58 pour cent yi la fal mais day concerné tamit 42 pour cent yi nga xam ne faluñu la woon parce que noonu la république di doxee noonu la état di doxee kon donc moom loolu mu wax muy nangu na maa toog ak ñëpp loolu moom loolu la war wax te loolu la war a mës di wax te maa ngi koy ñaan mu dëkk ci di ko wax parce que bu ko bu bu yaatalee dënnam Euh, accordé ñu ko ñu ko ñu ko fal am ñu ko falul xam ne bi décret di jóg moom buy bind décret du yëg décret bi du yëg ne am na 42 yu d'accord décret bi day mel ne que ne cent pour cent sénégalais yi ñoo ko faloon te pourtant am na ñu nga xam ne démocratie moo leen mayoon ñu bañ koo fal te bi ñu wàññee xob yëgal nañ ko ne ko 42 pour cent ci sénégalais yi faluñu la te loolu buy jël décision moom ñooña ñàkk gi ñu ko ñàkkoon a fal kooku du feeñ ci décision Macky Sall kon la fa war a xam ne moom ñiy opposé wu ak ñu opposé wu ñëpp mooy seen kilifa kon ñu ngi koy ñaan daal loolu na ci sax euh, jàmm jàmm nag ñaaro koy dox loolu moom Ousmane Sonko ko mujj a wax loolu mooy réalité jàmm parce que nit bu fekkente ne yàlla dafa dogal euh, jubóowu leen tam ya te wóoluwu la mu yaakaar ne danga koy rëbb kooku pour mu wóolu la ba ngeen toog di wax te it dialogue yi fi ma a am tamit dafa am fu mu jëm te président tamit day génn wax ne dafa bëgg a nit ñi bu subaa nga gis ay ministre wala ay ñu yor ci ñi bokk ci bureau exécutif euh, Benno Bokk Yaakaar nga xam ne ci ci bi lañ bokk dañuy génn di wax ne ku mel ne Abdou Mbow gis naa ko mu ne opposants yi ay malfaiteurs lañ hmm. baat boobu nag mënoo koo wax ba noppi wëlbatikuwaat di président nga nangu président di woo ay malfaiteurs di wax ak ñoom ak yeneen kàddu yoo xam ne dañ koy dégg ci ay ministres yi boppam yoo xam ne boo ko delloowaatee ak nawloo sax moo fa amul te itam Euh, gis nga dañuy géwél yi ñooy wax ne ba aw askan boo ca teralee kenn teral nga ñëpp mais jàpp naa ne tey ci président euh, ci Sénégal secrétaire généralu parti politique waruñ ko mën a jàpp ci ay yenn yu ñàkk fayda quoi ku mel ne Bassirou jàpp naa ne ñii kenn gënu ko fee yaru kenn gënu ko cee responsable kenn gënu ko cee am xam tey loolu yaakaar naa ne ñi ñi àndul ak moom sax ñi da ngay gis ku mel lu muy yëpp yëpp waa Pastef da ngay dégg mu ne non Bassirou Diomaye Faye nag moom nangam bari nañu nga xam ne tey comportement Bassirou Diomaye Faye moo leen moo leen bàyyi ci Pastef parce que dañoo xam ne kii nit ku nitu jàmm la soo amee lu mu wax loo xamante ne du waxu dara ak ni mu demee nii euh, yaakaar naa ne loolu tëjuñ ko moom tëjuñ ko mais Abdou Mbow lañ tëj euh, Bara Gaye lañ tëj Mame Mbaye Niang lañ tëj parce que parce que posture bi mu am ci politique war na waru ko woon a may waroon na ko mën a may maanaam ñu koy pardonné lu bëree baree bëri mais su fekkente ne tey da nekk ab secrétaire généralu parti tëj la ak tëj benn benn benn benn benn benn buujumaan wala benn Kolar ñoo yam su boobaa yow yow tëjoo Jomaay Fay mais képp kuy politique ci réew mi nga jël tëj ko ci kaso. Ngor yoo Fokaam jamono jii tàkk na ñu gis ne démb kër Farba Ngom aussi ñu taal ko ndax mën nañoo wax ne ay du yem si boppi borom li tàmbali di xew si ñetti dëkk lépp yooyee. waaw loolu maa ngi ci mastawu Farba Ngom bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla may ko xolu muñ parce que tamit. xëy na digganteem ak président Macky Sall moo tax ku mere président Macky Sall rek da nga boo gisee Farba wax dëgg yàlla da ko koy da nga ko koy da ngay jàpp ne boo koy boo ko defee dara sa sa sa xol dina ca faju waaye moom jàpp naa ne coow la moom yaakaar naa ne lam ca man bëriwut wala lam ca perspective bëriwut problème mu problème mu maire la ñu ngi leen di ñaan daal ñu delloo si waat seen xel te état bi tamit delloo si xelam wasalaam